tax na ndakaaru xat ci biir ndakaaru université bi gën a rëy fi la ko tabax Assane Samb xëy jël xalimaama ci réew mi quotidien ne bu weesu nag loolu nga xamante ni tabax nañ ko ci biir ndakaaru mu yokk ci xataay bi embouteillage yi nga xam ne moom la ñu nemmee ko ci biir Dakar maanaam bu ñu xëyee wala wàcc jot kenn du mën a dem kenn du mën a dikk taga témbe du dem céng du dikk mbay laara te biir ndakaaru jamono ji nemmeeku na ñàkku kaaraange goo xam ne fu ko waay nat dana koy passé maanaam insécurité totale moo am ndakaaru Assane Samb ne li ma leen wax du dañ dëkk ndakaaru jamono ji metti na loola ak inondation manifestation yi nga xam ne jamono ji tere naa nelaw ñu bare bare bu paasee loolu nag bëri na ay mbedd yoo xam ne ay oto ki moto la ñu fa gaare ba tey ci biir yéen a kaay gii de mu xëy di ñu xibaar naa ñu lu jëm ci wàllum inondation yi état bu Sénégal 2012 ak léegi lu toll ci 511 milliards daat nañ ko si dugal ni ki démb la ñu ko xamle ci assemblée nationale yéen a kaay gi di wal fajri nee na li nga xam ne mooy inondation yi ak xaalis bi nga xam ne moom la ñu si dugal am na ay député yu nekk ci ku jige yoo xam ne la ñu wax ne moom la ñu sa dugal ni ab xaalis gëmuñu ko yéen kaay gi nee na niki démb ci assemblée xam ne ñooy waa parti socialiste ak li nga xam ne mooy mbënd mi ci Ndakaaru yéen kaay gi de la Tribune njiitu réew mi di président Macky Sall tey jii dina dem ci diiwaanu Thiès waaye nag soo muytuwulee dina nekk visite boo xam ne dina bëri ay jàppante ndax ñi nga xam ne ñoo ànd ak Idrissa Seck ak ñi ànd ak Macky Sall ñoo ngi piccoo ñoo ngi mbaaloo maanaam ñi ànd ak mburu ak ñi ànd ak soow yéen kaa gi ne na mburu ak soow tey jii dinañu gisante yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu ñu xibaar naan ñu bato bi nga xam ne waxoon nañ leen ne dañu ko jàpp ci waaxu Sénégal mu yeboon li nga xam ne mooy drogue drogue xay ma nañ ko lu toll ci juróom-ñett ci ay tonu drogue yéen kaay gi nee na am na lu toll ci ñett ci ay doomi turki yoo xam ne teg nañu leen loxo yéen kaay gi de la Tribune ñu xëy fekk fa directeur du commerce intérieur wax na ci tabaski gi ak xar yi jamono ji li nga xam ne wax na ko nee na Sénégal yi bu ñu nelawee nañu nelaw ba yandora xam ne xar du manqué xar am ci marché bi nag directeur du commerce intérieur moo ko xamle du samay kàddu may nettali yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu dafa am benn doomu Cheikh Yérim Seck bu tudd Sidi Seck boo xam ne dañu koo tuumal ne dafa violé benn xale bu jigéen ba pare daal di koy filmer yéen kaay gi ne dossier ba jamono ji demul cee céng dikkul mbay laara waaye nag mbuur la xewee yéen a kaay gi de Les ne nee na en tout cas dossier bi jamono ji ma ngi ci loxol procureur waaye nag mbir mi demul céng dikkul mbay laara ki nga xam ne mooy xale bu jigéen bi ñu violé wala bi ñu wax ne moom la ñu violé ak yaayam jamono ji pression bu mag lañ leen teg jóge nañu mbuura dem nañ fi nga xam ne mooy sigi coora waaye nag ñoom nee nañu duñu sa deltu ginnaaw benn yoon yéene kaay gi nee na dossier boobe daal dañu ko bëgg nëpp nëpp la ni mu demee daal journal bi nee na benn doomu Cheikh Yérim Seck buy jàngee mbuur moom la ñu tuumaal ne dafa yegg ci benn xale bu jigéen koy violé ba jël vidéo ba maanaam daal di koy tas yéene kaay gi de l'Observateur nee na ak Tabaski gi nga xam ne moo jub si am na yenn commerçant yoo xam ne bu ñu tëddee nelaw duñu nelaw ba a benn tontine maanaam benn natt jox ko benn waay waa ji na mes Thiès na menteñ jamono ji dafa naani këne yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na 2011 ak léegi Sénégal jënd na ay armes ci France ci xayma boo xam ne toll na ci 237 milliards yéen kaay gi di Dakar Times nee na GIABA génne na benn rapport boo xam ne nee na Sénégal war naa yokk jéego yi nga xam ne moo ngi koy teg jëm ci wàllum xeex blanchiment de capitaux ak wàllum corruption yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Boy Niang nee na nag bi nga xam ne moo dox digganteem ak Tapha Tine dina ko bëriloo ba mu sonn mu doog koo duma doog koo daan Tapha Tine